asalaamaaleykum suñu mbokk internetu Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen jaay jëfal kii di Boun Abdallah Dionne nekkoon premier ministre fii ci senegal ci gouvernement Macky sàll nga xam ni eh, ak candidat la woon ci présidentielle yi ñu génn mujj gi nag tawat dab ko mu yóbbu ko France mu demoon di faju foofu waxoon nañu sax ne dafa génnoon àdduna waaye ci jamono yooyu fekk na ma nga France doon faju bés ni ki tey nag ci àjjuma ji di 5 avril tey jii nag yàlla moom na ko foofu ca France kii di Boun Abdallah jonn nag Sénégal xamoon nañ ko bu baax a baax ndax nekkoon na ci campagne bi yàlla dogal nag tawat dab ko ñu ngi koy jaale sénégalais yëpp di ko jaale fameem di ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana ñu ngi leen di jox di tëja ci yeneen xibaar fi seen chaîne Dakar People